premier policier du Sénégal mooy Mbaye Ndiaye te xam ngeen ne tey dama ñëwee en police congolais boo demee Congo Brazzaville euh, li lañuy sol am na benn nijaayu Fifi Sambu nga xam ne fii la nekk ci télé bi maquilleuse la nijaayam bi ba tey boo demee fi nga xam ne moom mooy ca Médina short lay mais ba pare nag dimanche matin mu solo la ay dàll yu weex wër naan kasu may koto bolo koto boobu boyee Mbaye Ndiaye <laughs> mais père mais monsieur le policier mais tout mes respect parappa ngi sappoin parappa parappa paragappa ngi sappoin mbay njaay mbay njaay ngi sappoin parappa parappa parappa mbay njaay parappa parappa parappa mbay njaay <laughs> mais mbay mbay kaay wax ñu démb fu mu la fekk <coughs> allo nega def jawaab bien waa ñëwal ministère mardi mardi matin le 30 <clears throat> tey la leen di kat pour seen affaire gàmmu yi bâche yi état bi war a joxe yooyu d' accord merci jërëjëf allo waa chef de protocole préparé ñu dem Sorano kat guddi gi ñu tuddee Macky Sall 19h lay commencé Soninke yi waa taal leen oto yi bu ñu amee 4 cortège baax na ñeenti motard ci kaw ñeenti motard ci ginnaaw damay bañ mu nuroo bu président bu mu bëri motard dégg nga wool ma daaf bi directeur administratif financier bi. allo na ngeen def eh, gendarmerie jolo na leen diggante Sorano ak intérieur dégg nga quatre éléments sur sur avant quatre éléments sur derrière d'accord allo nee naa la mënu mën a recevoir tey mercredi laa lay mën a recevoir bu soobee yàlla y a pas de problème pour tenir pour tenir policiers yi utal ma waaw 5000 tenir policiers yu bees sax waaw 5000 poli tenir policiers ak ay dàll yu bees sax. bu soobee yàlla ok ñu ngi préparé pour dem Sorano ni d' accord la la la la la nane ko kondigo kondigo avaxani kono taxana vaxade kono protocole d' yi allo viré nga salaire pour intérieur fay leen seen salaire man sama salaire mun nga bàyyi bala cinq dégg nga waaw non salaire yi mënu ma ko signé tey bàyyi ba mardi ma signé ko mais viré rek ma signé après ñu kii bu soobee yàlla non y' pas de problème c'est le ministre de l'intérieur Mbaye Ndiaye ok. merci. saka faxana subvention association des des xawma lan jeunes étudiants qui financement ah xaaral ma recevoir leen mercredi aw ma jot mercredi signature kii kan Ousseynou Dia ñu naan ko Cuq citoyen qui voulait vous rencontrer bàyyi ma jox ko le 31 décembre aw ma jotu ay citoyen benn citoyen voilà allo eh son excellence Bruno Diatta <laughs> pourtant je voulais appeler Macky Sall tout à l'heure je suis dans mon bureau <laughs> le premier policier de, la République waaw ah Macky dama soxla waaw na ma woo ma xaar appel bi yàlla na doon jàmm rek Macky di xam naa fu mu ne nii saxaana faaxa ndik no ona katahum taxam maafa alay weega faaxa teng na ta faaxa allo madame Diop nanga def pour audience yi partir de mardi mercredi du ma jël kenn audience parce que dañuy ñëw di la balo ak rek di ñaan déwénal di sonal nit ñi fii ministère de l'intérieur du affaire ay dugg génn dégg nga bu soobee yàlla baax na nee leen ñoom ñëpp mercredi laa leen recevoir pour salaire nag du ma ko mën a fay tey lundi mardi mardi mardi ma signé waaw bul jël benn téléphone nag parce que Macky daf may woo léegi mooy woote nii mooy woote. Bruno Diatta naka def mba jam la <laughs> ça va lu xew nga ne Pathé Seck général xam naa ko kay lu xew lu ko dal kan ku ñu remplacer man Mbaye Ndiaye men gis nga biri non affaire jool ak séeréer kenn du ko café xam nga séeréer mooy buuru tukulóor Macky mun na ko café ma xam na sama kal la bàyyi li def waay <laughs> gis nga biri non jant daa fii dafay yóbbu fit rek la sabaxana o oh, um sa taxuna ko ay magam jëm ki muy kafe yi dinaa dinaa bind rapport sax wax ko ko xam nga keroog maa ngi koy tooñ naan ko war nañ ut ay xale yu ndaw pour protocole bi xam naa moo tax muy fayu allo Abdou Aziz Mbaye ah, premier premier ministre naka def njaay Mbaye njaay Mbaye waaw biri noo woon ma léegi dama ko raccroché sax dama foogoon ne affaire u kali la diggante séeréer rek joola nga woy rek na fun andanoxen a ñaaƴa o ndig na keg na tamun taxuma faaxana ndig na woko niko na taxuma na kana na faaxana na taxuma tana faaxa o na taxum na faaxana way may ñaayo faxana faaxana a digum taxum o faxana taxuma a fixe a taxana way saba de woy wa faxama tax na tax na a ah, tax na tuxuma faaxaana kay Macky Sall wala faaxaana tog ko ɓe jeg tug taxum taxuma seereer a faqa fuuxaana ay wuy wuy sapa Cheikh Béthio